إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله mbokk yi ñi ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala di seede na yàlla dong mooy ki yeeyoo ñu koy jaamu suñu yenent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy royukaay bu mag ba nga xam ni moom dong moo war a jàngale ni ñuy jaamu yàlla ñi ngi ñaan yàlla julli ci moom ak njabootam ak ñi koy roy ba ilaa yawmi diin mbokk jullit suñu xutba ak tey mi ngi jëm ci ña nga xam ne ñooy liggéey ak àq ya nga xam ne islaam jox na leen ko mu dëppoog suñu bisub tey bi ñu ne ñi nga xam ne ñooy syndicat yi nekk ci réew mi dañoo woote benn manifestation benn marche ngiree ñaxtu ngiree ñu matalal leen la nga xam ne moom mooy seeni àq waaye ngalawaay doomu aadama bi yow jullit xamal ni amul lenn loo xam ne dana tax àdduna baax lu dul naka lislaam jàngale moo gën a rafet amul luy tax àllaaxira baax lu dul naka lislaam jàngale moo gën a rafet bokk na ci loolu bu ñuy xool ci wàllu liggéey awalan suñu borom yàlla subhanahu wa taala daf ñoo woo ñun ñépp mu ne ay yéen nit ñi maa leen binde ci benn bakkan génn leen ngeen góor ñu bari ak jigéen ñu bari ki gën a tedd ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla loolu day wane ne du ne ñi nga xam ne ñoo am ay moyens ba ay nit ñëw di leen liggéeyal ñoom ñoo gën seeni moroom bal suñu boroom leeral nañu ne ki gën ci ñun mooy ki gën a ragal yàlla gannaaw loolu it suñu boroom yàlla mooy ki dogal àdduna di dox ci dimbalante bu doonte ne suñu boroom daa def ñépp am ba kenn soxlaalul wuti mbokk kon àdduna day daal di tukki noonu nag moo tax borom bi ne man maa leen jël séddale leen yëkkati ñii teg ca kaw ña ca des ngiree ku nekk di mën a jëfandikoo sa moroom suñu borom yàlla waxul ngiree ñi am di jëfandikoo ñi néew doole waaye dane li yettaxisa baaduhum baadan suxriya ku nekk doon koo xam ne da ngay jëfandikoo sa moroom ci tàggat ga ko yàlla tàggatal ñeel la looloo tax ba mbokk jullit ñi néew doole bu ñu nekkee ci service yi ñi amit ñi amit dañuy wëlbatiku nekk ci seen service ca mooy ku nekk ak fala yàlla subhanahu wa taala féetale loolee ku nekk ci ñun bàyyi ko xel bu baax bokk na sunu maami wolof yi li ñuy wax ña toog ca ker ga day ña toog ca naaj ba ñoo leen fa bàyyi bu dul woon kenn nangul woon a toog ca naaj wa kon kenn du toog ca ker ga waaye kon loolu mooy la nga xamee ni noonu la jullit moom di gisee mooy képp koo xam ne am nga njëriñ ñépp nga amal njëriñ loolu boo ci jëlee rek tey jii lu bari ci wàllu commerce da ngay gis ne am nañu yàlla tàggat ñu mën a dem bitim réew génne millions yu bari indi ay conteneur waaye buñ ñëwee fañ ko yemele mën naa bañ a yem ci ñépp mu am ñeneen ñoo xam ne dañuy dem ñoom jënd ca ñoom nekk grossiste gannaaw ba borom bitig ba nekk ci koñ ba dem jënd ci ñoom ba yow mi nga xam ne yaa jàkkaarloog bitig ba dem jënd la ngay bëgg a jënd da ngay xool chaîne ba nga xam ne moo ko jële Hong Kong wala mu jële ko Dubai wala mu jële ko feneen loole da ngay gis ne mbokk lu gudd la kon adduna yépp ci gàttal noonu la tëddee léegi nag da ngay gis bokk na lu siiw lool mbokk julit ñi nga xam ne dañuy liggéey day seeni àq nit ñi duñu sàmmonte ak moom la gën a bari la nga xam ne moo koy waral moo di ne ne heure bu ñu demee ba ñiy sàkku liggéey daa di ëpp liggéey ba am ña nga xam ne ñoo leen di liggéeyloo dañ leen di exploité ca mooy nit ki nga jël ko ci xam ne kii kat daa tumuranke wóor na la liggéey bii de lam yeyew woon mooy nga fay ko cinq cent mille par mois waaye xam nga ne chômeur la ak diplôme am wër na ba sonn wóor na la ne boo ko fayee cent mille dana la liggéeyal la nga bëgg proposé woo ko lu dul cent mille yooyee kee nga xam ne nii yeyo woon nañu fay ko cinquante mille moom it nga xam ne daa tumuranke nga proposé ko vingt mille wala quinze mille loolee mbokk ak tooñ la ca mooy nit ki joxoo ko àqam te suñu borom dafa santoon ku nekk ci ñun nañ ko jox la nga xam ne mooy àqam aka bari it ci loolu ña koy waral mooy mbokk ñàkk a xam diini lislaam dañuy sant suñu borom bu baax borom boobu nee na dafa araamal ci boppam tooñ waaye araamal ko suñu diggante mu ne ngalawaay bu leen di tooñante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa dinañu moytu leen ñaanu ki nga xam ne dañ koo tooñ ndax digganteem ak yàlla benn xijaab ne ko fa loolu it yow mi nga xam ne yaa yor sa entreprise yow mi nga xam ne yaa yor sa magasin wala yaa nekk sa kër di liggéeyloo ay nit mu wóor na la ne ñii kat boo leen fayul it amul lenn luñ la mënal ndax say moyen ngalla way da ngaa fàtte ne sa kattan googee ñoom am nañ kattan bu ko ëpp doole ca gën koo wóor ca mooy kattanu borom bi jalla wa ala su dee ne yow da nga leen a tooñ mbokk la nga xam ne nii mooy tooñ ñi nga xame ne nii dañuy liggéey bari na lool nit ñi di ko def saytuñu seen diggante ak seen boroom waaye saytuñu it seen diggante ak seen moroom ca mooy mbokk julit yow da ngay xool ki nga xam ne da nga koy liggéeyal da nga war a sant sa boroom jalla wa ala moo ne bu neexoon yàlla day yow yaay sol saw dal ñëw fëgg buntam proposé ko ndax moom doo dem liggéeyal ko tey yow yàlla laayi la biir may la kattan may lay moyen ba moom moo jóge ca dëkkam jóge ca këram ñëw ci yow ak respect ak toroxlu ngir nga jox ko ab liggéey nga la waay loolu bu ko exploité fàttalikul xel ne yaa ngi jàkkaarloog sa moroomu doomu aadama te suñu borom jalla wa ala mu ne ñun dey wa laqad karramna bani aadama dañoo teral doomu aadama ca diine ji ñuy dund de dafay fay képp ku teral bàyyuma dafay toroxal képp ku suufeel tooñ bàyyuma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox ñu ci misaal yu kawe benn jaamu yàllaa ngi nii la ko dugal ajjana yërmaane bu mu amoon ci benn xacc may ko mu naan looloo ko dugal aljanna benn soxnaa ngi nii la ko dugal sawara benn muus la jëloon tëj ko muy jooy ba dee ca loolu looloo ko dugal sawara ma mbokk julit islaam bu dee ne dana yàlla dana yërëmaate ci teraanga bi nga defal bàyyu ma dana la mere ci toroxal ga nga toroxal bàyyu ma ana nag sa mbokk boo xamee ni nii nit la ne comme yow même bu doon ab yéeféer la ca tooñu la gannaaw ba mu liggéeyal la ba pare nga bañ koo jox la nga xam ne mooy ay àqam rawatina nag mbokk julit kooku bu dee ne dafa doon koo xam ne nii sa mbokkum julit la ngallaway nañu xam ne mbokk julit day du toon julit julit day du seetaan julit julit mooy ki nga xam ne mooy dëgëral julit yonent bi alayhi salaam ne julit ñi dañoo mel ne benn miir birig bu nekk day dooleel moroomam su ko defee yow ko heure boo amee employé julit sa njëlbeenu xalaat yow julit ngalawaay bu mu nekk nooy jëriñoo ci moom waaye sa xalaat na jëkk a nekk kii nga xam ne jaaxale na ba ñëw ci man nan laa koy jàppalee ba mu am dund gu dal lii moo war a nekk la nga xam ne mbokk mooy sa yow jubluwaay gannaaw ba it lu bari ci doomu aadama yi dañuy xeeb ñu leen di liggéeyal ndax la ñuy liggéey loolee tudde leen ay façon liggéey bu mu mën a doon waaye fokk mbokk ñàkk xam nañ xam ne liggéey bi gën a tedd bu doomu aadama yi liggéey ci kaw suuf moom mooy nit ki daan dooleem di lekk ñaqam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na maa akala ahadun taaman qat xayrun min an yaakula min amaliyati amul kenn ku lekk ñam bu gën la nga xam ne ni da nga ko liggéey ca la gën ci liggéey yi mooy la nga xam ne nii doomu aadama mbokk da caa sonn kon ñu mel noonu dañ leen war a respecté ñu mel noonu dañ leen war a jox cër loolu di doon loo xam ne luy metti la léeg-léeg moo gaa yi ndax xam ngeen liggéey bu gën a metti sunu ndaw ñii di lang ci oto mbalit yi ak xet yu mag yi ñuy jànkoonteel teewul nga dégg ñu ne ay mois mois ñi nii fayuñu leen ca ña ca mën a wax ay mois fayuñu leen mooy ñañ ca embauché ñu néew lañu waaye li ëpp ci ñoom ay journal yi rek lañ leen di jël ñuy dóor dàqe loolee mbokk ñàkk xam ca mooy doomu aadama bi nga xam ne dafa jóg di daan dooleem ngalawaay nga xam xamal ne mi ngi taxaw ci taxawaay bi gën a tedd bu ñuy taxaw ci kaw suuf noonu la yonent yàlla yi meloon ibnu abbas mi ngi nettali ne kii nga xam ne mooy aadama alayhi salaam day ab baykat la woon yonent yàlla nuux menuisier la woon wala ab lawbe la woon yonent yàlla idris ab rab la woon wala nga ne tailleur la woon yonent yàlla ibrahim yonent yàlla luut ay baykat lañu woon yonent yàlla salih ak shuaib ña nga nekkoon ca commerce ba yonent yàlla daawuda ab tëgg la woon yonent yàlla muusa yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñépp jaar nañ ci ak sàmm yonent yàlla zakariya it moom it dañuy gis ab lawbe la woon ca mooy ab menuisier la woon lii mbokk boo ko yégee da ngay gis ne kon employé yooyu na doon ca kër ga la ca usine ba la ca magasin ba la ca société ba fu employé mën a nekk danga war a xam nit ku tedd ngi koo xam ne dañ ko war a jox cir moytu di ko tooñ tooñ yooyee mbokk bari na lool waaye yi ca gën a siiw mooy nit ki liggéeyal la ba pare daa di taxaw pour nga fay ko nga lànk bañ koo fay la nga ko war a fay aka bari lool mbokk ci doomu aadama yi ñooñu nag ñàkk a xam diine la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na suñu borom subhanahu wa taala day nee na ñetti ñii may dàgg sante ak ñoom yowmal qiyaama kii nga xam ne dafa dafa santeeg ay nit kóllëre jox leen sama kàddu ñu joxante kàddug yàlla ba pare mu wëlbatu ko wor leen te ñoom dañ ko wulu woon ci yàlla tax nee na ñu mel noonu man may dàgg sante ak ñoom yowmal qiyaama ca man nga cee jël rek misaal waa ji nga ñëw wax ko wax ju jub bam jël doomam ju jigéen may la ko loolee da la koo jox ci kàddug yàlla moo tax yonent bi aleyhi salaam daan wax ragal leen yàlla ci jigéen ñi yéen a ngi daganal la nga xam ne mooy seen payya ca la nga xam ne mooy kàddug yàlla ñaareel ba yonent bi aleyhi salaam ne mooy képp koo xamee ni nii daa gis as gor mu jàpp ko ëpp ko doole yóbbu ko beneen dëkk daal di ko fay jaay jaam ku mel nii day yowmal xiyaama may dagg santeeg moom ñetteel bi mu ne mooy képp koo xam ne nii jël na benn employé bu koy liggéeyal kookee ñëw lam ko santoon lépp mu def ko ba pare mu bañ koo matalal pay ba na doon da koo fayul wala da koo fay desel ko suñu boroom mu ne ku mel nii day yowmal qiyaama man may dagg sante ak moom mbokk bari na ci loolu it mooy ci jël ay nit di leen liggéeyloo exploité leen di leen sant loo xam ne bokkul ak la taxoon ñu ñëw ci liggéey ba waaye xam nga ne ñemewuñoo bañ ngir ragal nga dàq leen teg leen loo xam ne attanuñu ko loolu it ñàkk dégg diine rek la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mu ne ay waay xam leen ne jaam yi nekk seen loxo waxul employé de jaam la wax jaam bi nga xam ne yaa ko moom mu ne seeni doomi ndey lañu yàlla moo leen nattoo teg leen ci seen responsabilité nga la way ku yor ab jaamam na koy jox mu lekk ca la muy lekk di ko jox mu naan ca la muy naan di sol ca la muy sol bu mu ko teg mukk lu mu àttanul bu mu ko lépp lu mu ko teg mu yëg ne diis na ci moom na ko ci dimbali kii mooy jaam bi nga moom waaw góor gi nga xam ne nag moom daa ñëw daa di lay yaakaar ca yàlla tax ngiree jox la ak xam nga jox ko sa ak mbokk ñu mel nii da ngay gis ne ñoom ñoo gën a yey ca waxi yonent boobu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonent boobu daanañu wax ne maa ngi leen di ñaan ngeen jege ñi néew doole ci yéen xam leen ne day seen ndimbal ak wërsëg wi leen di yàlla wërsëgal mi ngi jaare ci ñi néew doole ci yéen ci ñaan yi ñu leen di ñaanal ak jéggalu gi ñu leen di jéggalul wallahi maa ngi lay bégal yow ma nekk ci kër ga magasin ba usine ba foo mën a doon employé ya nga xam ne da nga leen di liggéeyloo nga fexe ba seral seen xol ba ñu lay ñaanal yàlla la nga nekk ca kanam rek la jëm yàlla dana la yëkkati àdduna yëkkati la àllaaxira yonent bi aleyhi salaam nee na seen wërsëg ak seen ndimbal yépp yàlla nga koy jaarale ci la nga xamee ni nii mooy ñaan ya nga xam ne ñu néew doole ci yéen dañ koy ñaan yonent bi aleyhi salaam wax ko ci benn xadis général ca mooy arrahimuuna yarhamuhum rrahman irhamu man fi l ard yarhamukum man fi sama ñi nga xam ne dañuy am yërmaandi day buur bi am yërmaande da leen di yërëm yërëm leen ñi nekk ci kaw suuf yàlla ma ci kaw asamaan yërëm leen lii mbokk da ngay gis bokk na ci loo xam ne nii képp koo xam ne am nga koo yilif di ko liggéeyloo nga war cee bàyyi xel tooñ gi nga koy tooñ na am ci àdduna lu bari amul ci pexe léegi-léegi da ngay gis ne amul conséquence ci yow yaa ngi lekk alalu nit ñi sa entreprise mi ngi dox yaa ngi am jàmm waaye ngalla waay bu mu tax nga jàpp ne mucc nga suñu borom mu ne wala taxsabanna allaha gafilan amma yacmalu zalimun innama yuaxiruhum li yawmin tashxasu fihi al absar bul jàpp mukk ne tooñkat yi li ñuy def yàlla da koo sàggane déedéet mi ngi leen di xaare bis boo xamee ne nii bët yépp dana buqeeku ngiree mbugal yu ñàng yañ gis ngir tooñ nga ñu tooñoon mu ne sahabatul kiram ndax xam ngeen ki perte dëgg ci xeet bi ñu ne ko ah yu mu yàlla yónni xanaa ko doon commerce perte mu ne déedéet ñi gën a perte sama xeet mooy ñu ñëw yowmal qiyaama ak seen julli ya seen koor ya seen at màkk ya waaye tooñoon nañ kii jëloon alalu kii lekk aqu kii ak tuur deretu kii yowmal qiyaama ñu dajale ñooñee ñu tooñoon jël tuyaaba ya di leen séddale ba tuyaaba ya jeex ñu jël bakkaar ya de sotti ko ko mu jóge fa daal di dem sawara loolu kon mbokk képp koo xamee ne ni am nga koy liggéey loolu yor ak xam nga la way bàyyi leen xel ci loolu yonent bi aleyhi salaam ne matalul ganiyu zulmu ki nga xam ne am na lu mën a fay ba pare bañ a fay ma ngay tooñ nga la way employé ba kum mën a doon ngeen d'accord ci ne la cinq danaa la fay à partir du cinq du six yaa ngi koy tooñ sept tooñ nga fulu na huit jour bu tegu ca loolu rek xamal ne yaa nga gën a tooñ ca loolu it mu amee ca ka ngay liggéeyal noonu la amee ca ka nga yorol bor nga digganteeg moom ne ko bi sangam danaa la fay bi sangam boobu boo fañul ca am nga loo fayee yaa ngi dugg ci tooñ ba baa nga koy fay soo amul nag loolu moom beneen mbir la loolu mbokk suñu borom yàlla moo ñu ko sant yaa ayuha allazina amanu awfu bil uqud ay yéen jullit ñi matal leen la nga xamee ne nii mooy dig yi ngeen diggante ak lu mën a doon loolee nag mbokk xëy bu ñu ci kenn bokk na ci yow soxna bi nga xam ne yaa nekk ci kër gi yàlla nattoo la sa moroomu jigéen na yow tumuranke jóge këram léegi-léeg ñoo xam ne région la ñuy jóge daal di ñëw ngir daan seen doole nga la way bul jàpp ne kii tumuranke ne weer wi dema fay ko rek kon léegi sab jaam la mboolem coono yi kër gi nga sëf ko ko boole jàpp ne dala war a respecté lu la neex wax ko bu la neexee xas ko ba mu rab saaga lu la neex nga def ko mbokk loolee da ngay gis ne ñàkk xam diine moom mooy waral loolu nga la way kenn ci yéen ku am mbindaan na sant yàlla comme na ma doon waxee ci employeur bu njëkk ba su neexoon yàlla yow yaay tumuranke doo am loo lekk gàddu sub sir dem di mbindaanu ji wala sa doom bu jigéen gàddu siram dem di mbindaanu ji ngir amul pexe kon ñu xam ne kee nga xamee ni nii jóg na ñëw nekk sa mbindaan su ko neexoon gàddu saagam bu guddee dem jaay boppam ngal la way ku mel noonu bàyyi lu xaram loolu ñëw ci yow jox ko cër jox ko respect jàppe ko ne sa doom bu jigéen jàppe ko ne sa rakk bu jigéen loolee nga fàttaliku anas ibn malik radiyallahu anhu nee na man day nekk naa ci service yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fukki at yonent bi musul mer ba ñëw ne ma waaye anas lu tax lii ma la santoon defoo ko musul mer ba ñëw ne ma anas lii nga def lu tax nga def ko loolee mbokk képp kuy employeur ca société ba ba bàyyi yow soxna si nekk ci biir kër gi nga la waaye bàyyi leen xel loolu nekk ak ña ngeen nekkal ci jukko bu rafet wan leen melokaan yu rafet même bu doon ay chrétien lañu loolu mën na leen a xemmem loolu lislaam bañ tuub dugg ci lislaam celi falilay alhamdu it am na ay jigéenu jullit ñu baax teraa nga bañ yoral seen i mbindaanu chrétien moo dem ba tuubal leen dugal leen ci biir lislaam loolee mbokk bokk na la nga xam ne nii moom lañ cay jeexale xam leen ne ci jaamu yàlla yi gën a màgg bokk na ci liggéeyloo nit fay ko ci yàlla tax yonent bi alayhi salaam nee na ñetti nit a ngi demoon di dox ci benn àll yàlla dogal benn xiin bu rëy dàq leen ñu daw dugg ci benn xunti benn grotte ci benn montagne ngelaw li daaneel benn roche brique bu mag mu tëj buntu xunti mi ñu puus puus mënuñu ci dara ñu ne ah fii de tey leen dongo ñu fi mën a génne mooy jëf joo xam ne bañ koy def ci yàlla rek a taxoon ñu koy def yàlla mi nga xam ne moom dong nga xam sunu fii ñu nekkee moom dong moo ñu mën a xettali kenn ka daal di wax ay wax xëy na dana ñëw ci yeneen xutba jaaroon na fii ci ay xutba yu paase keneen ka wax la mu wax ca ci gàttal kii wax na la nga xam ne mooy njekk gu mu dafa doon ay woy juram xeer bi daal di puus ba loxo daal di fay xaj kee def njekk gu mu defoon ci bàyyi njaaloo ca mënoon a njaaloo xeer bi puus ba ab tànk daal di fay xaj waaye mënuñoo génn waaye xoolal ñetteel bi li mu wax ay yow mi yàlla yónni amoon na ay employé yu ma doon liggéeyal ba ñu liggéeyee bi liggéey ba jeex ma leen di fay am kenn ci ñoom gisuma ko ma dencal ko fayam ba mu yàgg ma ne xaalis bi ma denc day bu yàggee du am valeur ma dem jëndal ko ci benn xar xar boobee yàggul mu daal di jur di jur boo bari ma dem jëndal ko nag jëndal ko yàlla jur ga di bari di bari ba bis waaje dellu siwaat ñëw na ma ay diw at sangam day liggéeyoo lool naa la ca yow fayoo ma woon ma ne ko wax nga dëgg kaay ñu dem ci gétt gi ma ne ko gis nga gétt gi lii lépp yaa ko moom mu ne ma xoolal bu ma tooñ dama ne nga fay ma sama salaire mu ne ko wallahi salaire ba ma la waroon a fay ca laa la jëndaloon ak jur jur googee moo jurante ba tol nii ay yàlla bu dee ne loolee ba ma koy def dara taxul ma koy def ngir sàkku sa ngërëm yàlla nañ ñu génne fii xeer bi birumu daanu fële ñu daal di génn loolu yonent bi alayhi salaam moo ñu ko nettali looloo tax ba yow commencé ci yow soxna si am mbindaan heure booy jëlee la ngay fay jublu ci jaamu yàlla jublu ci ngërëmal yàlla ba baa toile directeur général ak foo mën a nekk ak képp koo xamee ne nii ab président la wala ku mën a doon bu am décision ci ñu décanté ay salaire yu bloqué woon ngal la waaye jóblil ci loolu jaamu yàlla ca xam ne nim nekk musiba ñàkk a joxe àq noonu la nekk xéewal joxe àq ci yàlla subhanahu wa taala tax yal na yàlla boole ñu ci ña nga xam ne dañuy am yërmaane ba mu yërëm leen yal na yàlla boole ñu ci ña nga xam ne ni dañuy joxe aqi doomu aadama yi yal na ñu yàlla musal tooñ àdduna musal ñu tooñ alaxira yal na yàlla defal ñu aafiye fi dunya wal axira allahuma rabbana atina fi dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا مريدا إلا شفيت ولا دينا إلا قضيت ولا هما إلا فرجت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرت برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين